presse bi rek. Aliou euh, daam ñëw na Mbaye. Aliou ça va dégg na yow. Euh, organisation bi nga mettre en place fii. vraiment c'est une première fii Mbour ñu gis lii nii ñu teg ko fi. ban satisfaction nga ci am. waaw lépp bu mag lépp bu bëri sax. di ñaan affaire bi commencé ci jàmm. si alhamdulilah rabbil alamin euh, a mis une très bonne organisation. ça se voit. yaa ngi avancé naan naan am nañu mais mais mais mais ndax billets yi écoulé na nice. amoo leen benn problème ci vente beeg yooyu yëpp quoi. ça s'est bien passé ci euh, affaire prévente yi jusqu'à là aussi ça avance très bien ñu ngi jaay normal gars yi ñu ci gisee

nee day teel a ñëw tey parce que bëgg na teel a jouer gars yi te du xaar du toog xaar ba deux heures du matin pour pour pour jouer neneñ sax bien avant ça sax minuit sax mun nañ xaar mu atterrir ñëw jouer lan nga mën a wax ci ci ci loolu. nga xam ne déjà moom déjà arrivé na kii ñu ex na ci Mbour. Mbour ah ma ngi Mbour ok. moom décision am teel a jëm jël na ko bu yàgg. ok te je pense que tey dina teel a commencé. Ah. peut-être ay minuit. minuit waaw. au plus tard dina yëg ci dafa bëgg teel a wàcc pour nit ñi mën a am après dem topp kankurang yi. incha allah pour. Euh, gën a mën yeggali feetu fête culturelle am Mbour. Hmm. moo tax mu bëgg a teel pour gars yi mën a am assister si yi concert bi ak après dem yeggali seen programme. un dernier mot pour la population de Mbour. waaw di leen remercier déjà dara xewul ci euh, amul bu ñu jox ci pendant caravane bi durant vente ticket yi promotion yi bu ñu duggee ci boutique yi. Hmm. war nañu mbëggeel bu bëri xam nga soutien di jàppale waa bu baax.

ma engagé ko ñu waxtaan ci kese jubóo après mu ñëw tëgg ci jam rek. est-ce que ñu ngi xaar suba Alioune Seck mu tëgg Wally Seck trop. ak yeneen artistes yi ak yeneen artistes yi ñu xaar Alioune Seck mu tëgg yeneen artistes. ak yu bëri kay. ça c'est le Pascal. mais Pascal. waaw mais ça c'est. mais mon waaw mais naka mu. mais mais mais Mass directive TV mais ben ben 30 secondes rek mon chef excusez-nous 30 secondes s'il vous plaît. Euh, Pascal euh, organisation bi nga xamné ne gis nañu Sek c'est Seydina Aline Sek mettre quoi en place. Mhm. pour une première nak mu ñëw teug fi ni ci mbou ban appréciation nga ci def. déjà bi mu ñëwee ma gis aspect ticket. sama xel dafa dal. ah bon waaw motax tax ma laaj ko question bobu ne ko en tant que frère. Hmm. qu'est-ce que ça fait ne teug sa mag nak da ngay indi mbokk bi. Mhm. wala da nga koy professionnaliser. Mhm. dégg ngeen dégg ngeen li mu tontu. tey jii euh, Mass boo gisee boo duggee xool ni euh, stade bi. xam ne tout est bien structuré. bien sûr tout est bien organisé. Mhm. tu vois policier yi yaa ngi gis amul Pascal Cousin amul Pascal international. ku amul badge da ngay génn. donc là je vais aller chercher mon badge. sinon je pourrais pas prendre dimanche juste pour wax leen rek na une organisation extraordinaire. mais mais mais Pascal euh, euh, euh, sur les démarches de Wally sur les sorties de Wally chaque fois dañuy gis motivation bi nga xam ne koy à chaque fois dafa mel ni daal deret dafa fort yow ci yow parce que dafa mel ni aussi am na loo bokk ak Wally moo waral nga indi taxawaay boobu noonu ci à 100 Euh, cent. Wali, c'est que, je le dis en toute modestie hein Wally Seck dafa dafa yëkkati sama sama téléphone mu ne dam leen ngeen topp Pascal lu mu leen wax maa leen ko wax man sax Pascal moom laay topp donc kooku su ma waxulee loolu rek damay gore bi su ma defulee loolu rek maas damay gore bi ah. Allemagne bi liggéey naa fa ba xëm Wally Seck oote ne bëgguma gis Pascal Balance pour que je me repose mais mënuma ko su ma nekkee ci du ma lekk du ma naan bi nga ñëw fii ba ba ñu metti laa indaale maa maa la koy wax léegi nii maas yëgatuma douleur du ci man nag xaw ma lan la peut-être que ma gisee je vais pas dire que je tombe en transe mais je mon texte ça ça sago. quoi. mais c'est au-delà c'est au-delà li D'accord, d'accord. D'accord, d'accord d'accord pareil aussi ne sais pas D'accord? presse bi D'accord? D'accord? Hmm. si la déjà dans mon France tu vois nga Belgique mais je quoi. aussi, aussi de remercier toute la presse en ligne. Et aussi j'ai un message. Mm. chaque fois que je suis voilà, ben artiste, je suis Dakar, dem Europe. Chaque fois que je fais prestation, pareil, je suis dis Mas, je presse en ligne d'une en Mas, yow nit deug nga mm. da nga Pascal il wax ni deug mais tay ji na gëna que ça soit Siri Diop Zain Kaita

Ligue en ligne du expérience là ak hmm. donc j'invite à tous les artistes hmm. en commençant par mon cousin Wally Balagosek. Merci. on est en train de préparer un événement majeur un rendez-vous hmm. le 7 décembre à Paris avec le promoteur qui se m'a que je que je salue de passage ah. et dit ñaan xaw organisation mais même su fekkante ne deux ben journaliste ou bien ben animateur wala ben la presse en ligne. ñu jël leen yóbbu leen. Pascal mën na liggéey ak xarañte FM. Mm. mais tay ji su fekkente ne un mas wala Diagne nar wala ñeneen ak ñeneen. Mm. ñom dinañ am image en temps et en heure. te dinañ ko mën a balancer aussi sur seen collègue. man ce sera mon combat. inshallah merci beaucoup pour le soutien merci à ma famille. merci beaucoup pour le soutien Pascal. kontaan naa kontaan naa baax bëgg naa grand bi kontaan nañu kontaan nañu jaajëf. alors. ñu ngi fii nga xamante ni mooy ci euh, ci Mbour nga xam ne Wally Seck tey ji war na fi jouer def spectacle boo xamante ni takkam Mouhamed Seck moom moo ko tëgg donc lumière yi ngi gis noonu xam naa ci kanam tuuti gars yi nee na dana teel a jouer allah donc VIP bi moo nekk na le lii ngeen gis mooy chaîne bi seen bi moo nekk na lii ngeen gis lépp nag ci wet gi mooy fi nga xamante ni tey fi lan réservé pour public bi nga xam te ñoom ñoo war a ñëw seetaan ci Wally Ballago Seck d'accord donc ñu jege wala leen di nga xamante ne moom mooy chaîne bi chaîne bi moo nekk nii fii la Wally Ballago Seck war a ñëw jàkkaarloo fan si nga xam te ñoom ñoo nekk mbuur xam naa ni dina leen jox spectacle bu doy waar parce que Wally lii mu réservé waa mbuur xam naa lu rëy la VIP bi ngeen gis mu nekk na le